jëlaat nguur waxoon doylu na sax man dinaa ko wax jëlaat mu ne bu waxoon doylu na sañ ko de eh, doyaloo jëlaatal ñun bëgg nañ mu soosaat ndax bëgg nañ mu soosaat li ñam neex nañu li ñam neex nañu doy nañu doy nañu astaghfirullah aywa léegi nag Sénégal a ngi nii beneen bi mooy it euh, bëggoon naa lool lenn ci imaam yi roy imaam Dicko ba nekk Mali ci njàmbaarteem gi mu wane woon imaam bii nag waroon nañoo leeral ban kii la ci Dalifort parce que gis naa fa jigéen ju pàccal ci biir jàkka ja Xalil euh, noo jàngatee élément bi d'abord ak it nga defal ma benn kii bu gaaw ci Sonko mi ñu wax nitu ay la parce dafa bañ a jàmm. waaw ci élément bi buñ ci demee. Euh, dañuy wax ne rek euh, dañu toll ci réew moo xam ne ñiy faj ñoo feebar. waaw kon ñu feebar fan lañ jëm. fan lañ jëm waaw ñu yaakaare suñuy niti diine. Mm. nga xam ne dañu lay wax ne ñoom ñoo fi wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñoom ñuy doxalee nii seen wàll baax na. li ci des sama yoon nekku ci. d'accord bi ci des mooy. Mm-hmm. Euh, rapidement rek. waaw Seydina Aboubacar ba muy gi ci. Euh, Seydina Mohamed. bi mu mm. génne àdduna Seydina Babacar war a taxaw. Mm-hmm. comme taxaw président. Mm-hmm. dafa woo jullit ñëpp waa Màkka yëpp toog mu ne leen. lii ma jiite de du gën leen a tax mhm. te dama fee nekk pour xeexal ñi nga xam ne dañ leen a nar a noot mhm. ñi néew doole ñoo ëpp doole ci man mhm. ñi fi ëpp doole ñoo gën a néew doole ci man bu ma juumee dimbale leen ma ne ma juum bu ma nekkee ci lu baax dimbale leen ma ngir ma gën ci foncé ñu yaakaar ne ñooñu bu ñu royoon ci ñooñu du ñu doxale nii ñu doxalee seen wàll baax rek ñu bañ nañu ko ba nee nañ ñoom jox nañ leen ñi ci des ñiy torox ñi taxawaaloog ñi amul liggéey ñi feebar bëgg a fajuñ mënuñu ko seen yoon nekkul ci ñooñu léegi rapidement Ousmane Sonko waaw ci Sonko bu ñu ci demee damay wax ni. waaw euh, Sénégal dañu am habitude man ak yow bu ñuy xeex ma lay dóor yar. Mhm. au lieu que ñu ne ma bàyyil dóor bi. yow la ñuy wax bul fayu. waaw bëggal jàmm lañ lay wax bëggal jàmm yow it toogal nag bëggal jàmm fekk man maa yor sama yar. Mhm. bu ñu àttee ba ñu toog rek ma ne la cirib ab yar toogee ne le. au lieu que ñu ne dakkal dóor bi may da dóor. mais du ñu wax noonu mais ci benn côté aussi. Uh-huh. ci sama xalaat damay wax ne mm. Ousmane Sonko bu ñu ko dugal ci parce que nit ku nekk say jëfi tey mooy doon sa jëwi ëllëg mm-hmm. ci yenn discours yi daal bu ma sañoon du ci dugg ndax nettali fi bu Macky Sall nettali fi bu Ablaye Wade te bii mu déclaré la fois passée aussi ñi comprendre dinañu dem jëmmi jamono mm-hmm. même bu nekkee président dinañu koo ko fàttali macha allah bu ko defee ñu may signaler que li des bariwul kon rapidement rek ku ñu jox kaddu léegi ma jigéen <laughs> nañu signer euh, ay accord de paix pour ko jàmm mën a am ci Sénégal mhm. ci côté pouvoir bi ak ñi nga xamante ne nii ñoo di waa opposition bi comme ñoom ni ma déggee imam bi mu waxee mhm. moom bokk na ci ñu bëggul jàmm parce que ñàkk bëgg jàmm moom mooy ngay pousser nit ki nga xamante ne nii leer na ne moom deux mandats la fi war a def nga ne ko bu la neexee soosaat xam nga kooku kon bëggul jàmm moom moo tax muy wax li mu wax parce que lan alal bañ ko fa indil te du moom dong moom moo nekk imam si koñ bi li ñuy wax naan nag te président mi ñuy toog di tagaka kii mhm. mën na toog feneen lan la fi waxoon kilifa diine yi ay nit ordinaire lañ kon donc nit bul xool ni yow diw daf la jox alal rek nga fàtte ñi nga xamante ne nii dañu bootu si sa ginnaaw parce que tamit ñi bootu si sa ginnaaw ñi ci ëpp amaana dañoo bëgg nga leen di waxal dëgg mais di pousser nit ki muy dem troisième mandat kon mhm. kooku yow yaa fi bëgg a déclarer am na yenn yoo xam ne ji yenuwul mandat maanaa macha allah aywa di noo déggee euh, imaam yi ak Sonko mi ñu wax ni dafa bañ a xaatim jàmm kaa doy la waar ci imaam yi de ay kilifa lañ nag nañ xam loolu mhm. waaw euh, xaalis nag moo doy waar mais imaam yi ma li ma ciy wax mooy ñu ngi politique dëgg <laughs> des fois dañ naan jox leen la tiset nga ànd ak moom jox la cinq mille nga ànd ak moom mais imaam yi d'accord maa ñëw wax dëgg fa neex yàlla ay kilifa lañ suñuy maam lañ suñuy mag lañ mais li ñam neex na waaye tamit am na yoo xam ne rafetul tamit ci ñoom <laughs> su ma sañoon daal ah ñu xoolaat seen waxin rafetul ci ñoom daal d'accord ma ci wax dëgg fa neex yàlla benn imaam a ngi ci plateau bi imaam noo déggee waxu imaam yi ak Sonko mi ñu ni dafa bañ jàmm ba tax nangute signé jàmm ji waaw soxna bu euh, kër yàlla bu ñu fay dugg lépp lu ñu fay def daa war a sell mhm. daa war a jaar yoon discours bi maa jigéen dis def discours doy na sax ci discours ci li mu wax mhm. bu dëgg dee dëgg kër yàlla kenn du ko kenn du fa foox mhm. imaam dafa am fu ñu koy xoolee mhm. boroom xam-xam dafa am foo xamante ni foofu lañ lay xoolee mais bu ko neexee mu soosaat waaw bu ko neexee mu soosaat ndax liñ ñam neex na ndax ñun liñ ñam neex la ndax dugal na fi 4 millions waa anaka joxe woon cent francs moom ñoo gaaw a doylu ca jumaa ja ka joxe woon cent franc moom anamu kenn du ko tudd kon kooku yoru ko jàkka yi nañ ko delloo yàlla mi ko moom wa anna al masajida lillaahi fala taddu maallaahi ahada boo santee tey Macky Sall tey bu ko santee boo wax ni ko sant ko comme ni mu ko santee Macky xanaa nguuram du jeex après jumaa jooju continuité am lan lay doon kon imaam ah ak ña bokk jumaa ja bu ñu seet parce que nag eh, eh, bari na jumaa yoo xam ne naa la wax benn affaire imaam yi dañ fay mel ni ay buur dañuy mel ni ay buur ca jumaa ya kër yàlla kenn du fa tiitaru kenn du fa ngand ngandul kenn du fa jaay lu amul li ñuy bi daal mooy discours bi moom mhm. su ko mënee defaraat mu defaraat ko moo gën a rafet Sonko nag benn cadre rek laa ci wax waaw ni cadre Sonko la mhm. euh, Khalil wax na lu doy waar mhm. dañuy fekk koo xamante ni dañ koy dóor exemple la waxuma Sonko rek ku ñuy dóor mais ki ñuy dóor ngay wax bàyyil dóor mais bu fekkente ne ki ñuy door moom nga bëgg a wax noppil mhm. non problème day daal di am kon Sonko li leer ba leer mooy na gën a xam fu muy teg tànkam moom d'accord bu mu indi tam fitna d'accord ci réew mi di Sénégal macha allah acca su kaanoo déggee mbir yi damay dugg ci setan waaw ma saa mu dem acca ah? waaw parce que daf mel deux minutes lañ may signaler que ni moom laa desee saa waaw euh, imam bi dane defe naa daf ne bëgg naa mu soosaat wala waxul loolu waaw bëgg na mu soosaat waaw bëgg na waxut bu ko neexee kon dane bëgg na waaw imaam bi nag bëgg-bëggam la wax defe naa li tax sony bu linkee lu daawle kii mhm. euh, man lecture bi ma ci am waaw mooy dama jàpp ni am na ay nit yuy solo diine mhm. boo daan ne dañuy dox jàmm mhm. ci biir ñi solo diine mbaa raxut ñu mel ni ñi imaam bii nga xam ni bëgg-bëggam moom wax na ko est-ce que ci woote jàmm jooju amut ñu ci am bëgg-bëgg bu mel ni bëgg-bëggu imaam bi wala déedéet si loolu mooy li nga xamante ni bii man jàpp naa ni moom moo sabab élément bi ñëwaat pour ci ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo nekk ci mbir mi mhm. di wax naan dox jàmm mhm. nañ fexe jàmm am te ñu xam ni am na ku ñu war a wax ne ko kat sëñ bi parce que ñee ñoom dañ ne ku leen dóor ñu fayu kon bu dóoree amut fayu du am dëgg kon kañ wax dëgg fa yàlla am na ku daan dóore mm. nañ dem ci moom ne ko saay bàyyi leen dóore yi mm-hmm. bu ko defee élection yi am ci jàmm mm-hmm. parce que lenn dafa am sooy waaw di dem ci ay élection mm-hmm. naan nañ si yenn élection yi jàmm lañ ci wax loolu rek problème la parce que élection yi defe naa ni bu fekkente bi nit ku ne programme la ñuy déglu ci ay élection programme xalil xool ko ko neex kii xool ko ko neex ñu teg élection yi mu jaar ci yoon wa ilaa dafa nar a am lu nar a lëndëm luñ yëg ñoom te yëgaguñu ko ba noppi nag ñu bëgg nag mais bu loolu amee na jàmm am allah bu boobaa am na loo xam nag bu amee ka ko def moom moo indi ay bu amee kon nañ fexe nit ñi dem ci élection ci jàmm voté ci jàmm waaw di wax ne nag soos soosaat imaam bi xam naa <laughs> imaam bi dafa deex <laughs> waaw ñun moom ñun ñun moom wal fajiri bëgg nañ bëgg nañ ñu soosaat ndax li ñu ñam ci émission bi neex nañu moom. <laughs> kon su kay lii lañu indi woon ñu ngi jégalu ci xaababal gi ñu joxante dig daje ba dimanche incha allah. incha allah ñu bu ko defee ñu gën a leeral li nga indi woon borom naa feeg yooyu mooy ki pël bi duggoon voilà euh, donc euh, naay sati na euh, chaque jour ak fi ngay fël dafay nooy.